asalaamaaleykum mbokk internet sunu people TV ah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen màggal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay Mor Xobar Xobar la anti stress ah macha allah ah, ah, ku ne xam na ne ñu ngi si weer bu koor weer bu màgg weer wu sel ah tey nag ah, weer wi ñu si ñaanal ñëpp jàmm waaye nag weer wi tombeek nag sunu bis bi nga xamante ni mooy si la ñu amoon indépendance muy 4 avril ah ku ne 4 avril nag ne feetu indépendance Sénégal tey nag Mor Xobar Xobar dafa génn ndànk ànd ak sunu people TV def dugg si terrain bi ak caméra maanaam bi ah def ay daagu daagu da ngeen bàyyi xool gars yi ah nante yi <laughs> waaye damay xoolaale tamit ñi nga xamante ne ñooy ngaaka yi ayca di wàcc ci terrain bi di poser gars yi ay question ah yoo xamante ne maanaam di ngeen si mën a jàngat waaye tamit seen xool dina si sedd ah dama ànd ak càndum sunu caméraman bi bu fàtte abonné ah dee leen commentaire aimé leen ko dee leen ko cliquer ak sunu people TV càndum nañ dem xool gars yi ci biir lan moo fa xew. ayca mu ngi noonu ah ba tey ah dañuy wacc ci terrain bi di xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy feete bis bi. grand maa ngi si waaw sax delloo ziar daal. tur la. Babacar. Babacar tey la kañ. tey la 4 avril. Babacar 4 avril mu doon feetu indépendance. waaw. ban année la ñuy feete lañ lañ am sunu indépendance. 1960. Euh, kan moo ñu ko oke nung dulu ay dah mau dulu ay anu suju aja no no oke nung dulu no no oke mau jauh Samba Jabar Sam no no Alsan Bay deret kalau Patenawo moom lan la marocain la wala égyptien la wala algérien la wala lan la. non c'est non <laughs> gannaaw dama lay laaj ah mais dama lay tontu rek. <laughs> mais xam nga fàtte nga kat moom tuuti na indi fànn. ah waaw fàtte naa ko nga laaj ma kan la kay moo tax danaa ko. mais mais mais mais gannaaw eh, léegi oh, euh, déggoon la. waaw su ma juumul déggoon la ah, ah déggoon la ah, kon xam nga. ah waaw léegi ndaje boobu ndaje boobu ndaje boobu fan la woon gannaaw. est-ce que doon fii nii Colobane bi nii. <laughs> Colobane bi yaakaar naa ne. waaw Colobane. commentaire lan ngeen wax nu ndaje bi fan la woon gannaaw bëgg naa ci yow. jaajëf ñëw ba tey yaay booy ñu ngi lay. maa ngi leen di la. bëgg Fallou Ami Galas. Ami Galas bëgg Fallou. ay laay la la. Fallou ba bu mag baa ngi toog. déggal li. maay Ami Galas soppay baayu mbeer. mais yaay booy. Euh, tey kañ. tey. tey la avril. la. indépendance bis bi Sénégal moomee boppam. ban ane lañ moom suñu bopp. année bi nag de moom wax dëgg yàlla xanaa ngeen jéggal ma ko nag. léegi kan moo ñu jox suñu indépendance. ñun day wax dëgg yàlla ñun murid day ñun sëñ Bamba nu jox suñu indépendance. non non ñun Sénégal. xanaa président lamin Gueye wala Senghor wala France. président Lamine. Lamine Gueye wala Senghor. waaw waaw moo njëkk a doon président Sénégal. ndeysaan Senghor topp ci. waaw Abdou Diouf. Mm. Ablaye di ñëw. tubaari kàlla macha jox Macky Sall nii fi nekk tey. Euh, président Sénégal kan la. sixième président Sénégal mooy Macky Sall. bi Macky Sall la. bàyyi ma ma wax li may wax Macky Sall lay sixième président. yaay woy dëgg du neex. yow nga école. njàngum géwél rek. mais mun nga hymne national hymne national xanaa commencement bi. waaw léegi may ñu commencement bi ndeysaan bi ah. déglu leen sunu yaay bi. waaw. tout chocolat, ça prépare l'enfant. C'est pédé arrosé, ça donne, ça c'est la sang. C'est ça, la saison, c'est pas, ça les pas, c'est l'intéressant. Sans mes sols mais pédé sans, c'est mes sols à mes, li may wax nag Macky Sall boo ko moom def nga erreur bu mag parce que waroon ngaa mën jël kii mu woyale hymne national baat bu wér. waay maa galas yow waxal lii Marème Faye Sall. mais hymne national bi nga way nii. ku ko bind. ku ko bind. xanaa xanaa France. yaay booy bëgg naa. mi nu colonisé moo bind hymne national. rajo mu ngi noonu Thierno maa daa mel ni yaa ngi bëgg de soxna si maa ngi ziar. ça va. la. Khady. Khady Khady président Sénégal kan mooy cinquième président bi. déedéet déedéet du man maa la comme bu fekkee loolu ji. non toogal la ñu waxtaan ñëwal waay ah. ñu waxtaan waay. waaw léegi. léegi léegi léegi léegi. Macky Sall ñaata. Macky Sall. ah xaaral ma bi ñaata président ñoo jote jàll. waaw quatre la ak président. yaa may filmé nii yow bul ma jëlal Macky Sall waaw mooy quatrième président. waa xadi ñun ñun ñun ñun kan moo ñu ko jox waa Maroc wala waa Égypte wala waa Algérie. xaw ma. ah. xaw ma. xamoo ñoo ñu colonisé France la. France kan moo ñu kan moo ñëwoon bañ ñuy jox suñu indépendance kan moo ku ñu ko jox te xaw ma. xamoo. <laughs> bu leen ma dugal de. waaw mais xadi <laughs> mën nga hymne national. national senegal mun naa wax. waaw bisimilah may ñu ko rek tey en tant que bis bi 4 avril. lu ma wax. non waaye nag loo waay loo. ah. mënoo. mun naa de mais nag woy bi moom dama ciy rus. woy da nga ko. damaa rus te woy nii. ah mais ñoom tamit yow yow eh eh yow producteurs yi ngi lay seetaan de mën ngaa woy rek ñu génneel la single bëgguma mu ngi noonu ah <laughs> xad yaakaar naa <laughs> nee na cinquième président Sénégal Macky Sall la <laughs> xad dugg nga de dugg nga ni kanam. ayca mu ngi noonu ah nee naa la saa sune ah, dañuy ànd ak ah ki nga xamante ne mooy sunu caméraman ah di candum ah, wàcc si terrain bi. tey 4 avril la sunu fête indépendance la yaakaar naa ñu ngi fête sunu 63 ans ah yal na yàlla xeeb dolli ah yal na yàlla xeeb dolli yal na jàmm yàgg si réew mi grand maa waaw maa ngi lay fay sëñ bi. tur bi nan la. Ah, Leyti Faye la. Leyti fan nga dëkk. Ah, man maa ngi dëkk yëmbal Afia 6. Euh, Leyti tey 4 euh, avril la ñuy fête. waaw 4 avril la ñuy fête muy fête de l' indépendance. ban année la ñu am sunu indépendance. kan moo ñu jox sunu indépendance. Ah, monsieur le président Senghor. Euh, kan moo fi ñëwoon. ku fi ñëwoon. parmi tous les invités ou bien. wala précisement amoon na autorité yu bëri yoo xam ne kenn mënu leen cité quoi. waaw dafa am koo xamante ne nag moom wax dëgg yàlla moom dañ ko si cité. Hmm. waaw muy déggoon. muy incha allah déggoon. waaw euh, ndaje bi fan la woon. place de l'Obélisque. place de l'Obélisque la woon. waaw place de l'Obélisque la woon. 1900. 1960 la ñuy taxaw rassemblement ak euh, parti yu fi nekkoon yu bëri bëri moom comme mënu ma leen cité parce que ay anciens leen quoi. Mm-hmm. Euh, cinquième président Sénégal kan la. <laughs> cinquième président pour l' instant amaguñ ko moom. waaw <laughs> ah, ko. macha allah. waaw ah. ah, borom bopp yi laay waxal nag. waaw ndax kii bopp la. mais tey grand loo ñu mun a décortiquer si si si fête bi. ah fête bi c' est extra ça été ndax tey jii nga ñëw rek euh, fekkee fête de l' indépendance du Sénégal dafa nekk leen loo xam ne fierté la pour pour nous les waaw dañuy gën a wonewaat suñu bopp wonewaat suñu puissance wone ni tamit autorité yi ñu am ñu benn yoon. waaw surtout le président Macky Sall qui est actuellement le président de la République du Sénégal ñu koy delloo njukkal tey jii day soo gisee armée Sénégal di nga xam mobilisation bi nga xam ne tey jii nii kenn du ñu yàpp ku seetaan tey défilé bi di nga xam ne ñu préparer nañ intérieurement extérieurement. Mhm. waaw. macha allah ah, préparé nañ lépp. Ah, mhm. léegi euh, maanaam. Euh, lan ngay ñaan si réew mi loo xamante ni maanaam bàyyi xel nag. waaw lu may ñaan daal mooy jàmm. jàmm si la lépp xaj man maa ngi mobiliser ay mbootaay yu bëri maa fi représenté le ministre Thérèse Faye. Hmm. waaw naa fi contestant yu bëri. waaw mobiliser naa huit quarts yoo xam ne. yow mi en tant que jeune. ay boo doon mbër. ah yaa ngi nii. ay boo mbër. non mun naa du hasard moo tax nga wax ak man. dëgg la waaw. hasard amul quoi rien n'est hasard dans la vie moo tax tey jii nii moom mooy présenté sama bopp en tant que autorité hmm. waaw. maa ngi présenté Thérèse Faye waaw waaw derrière yi nga fi gis yëpp mooy maire yu ma la doon woon yëpp moo nekk responsable yoo xam ne ñoo jóge Kër Massar Yëmbal Thiaroye Route de Bour ñoom ñëpp ñu mobiliser ñëw soutenir le président Macky Sall mhm. waaw macha mhm. euh, kontaan nañ ci yow merci ñoo ngi kontaan si yéen waaw mais mais mais mais mais mais sunu xanaa dañu si may tuuti surtout boo ko la rappelé fond mooy yem foofu noonu ah. lu si des ñu def ko waaw maa di remercier yéen bu baax a baax a baax a baax ah yéen non waaw organe de presse yéen kenn amu seen fay maa ngi leen di jaajëfal bu baax ndax man su ma de waaw su ma dee lancé message à travers le monde sax entier mun naa ne dañoo war a jàppale journalistes yi muy yéen ndax da ngeen di liggéey liggéey boo xam ne lu am solo la waaw dañ leen war a protéger surtout les manifestants ndax tey jii ni blessures yi nga gis yëpp yëpp ba ma demee principal gis naa fi yenn journalistes yoo xam ne dañ leen blessé par balle ñii dañ leen fi por oto te loolu moom dafa nekk leen loo xam ne état bi dañ leen war a protéger ndax liggéey bu ngeen di liggéey dafa nekk leen loo xam ne kenn a leen a fay merci macha allah yàlla na jàmm yàgg ah. lu ne fàng la ah, kenn du ko jeex benn nen bu ko mbooloo bokkee kenn du ko omelette kenn du ko baxal dañ koy mayonnaise koor sa mbudu capp soos lekk cameraman du peuple laa àndal muy càndum nañ demaat xool. waaw waaw. bro maa ngi lay ziar. delloo ziar bu wér Baye la. Mouhamed ñu ne ko Amath waaw Mouhamed fii nga dëkk. man yëmbal laa dëkk banlieue. ah tey wax. yàlla tey moom ah, euh, inde euh, fête bi xeeñ na xun nag banlieue macha allah non instant moom ba banlieue dañ fee wàcc dañ fee dañ tey macha ndax dañ ñoo mooy loolu euh. jox ñu ay car <laughs> mais Mohamed Mohamed tey la kañ non tey 4 avril la 4 ñoo koy fête tey nag at la amagum. instant yii 63 ans. 63 ans waaw année lañ ko amoon kon. non yooyu moom mooy loolu. yoo xam ne dañuy bàyyi mu jàll rek. mais ñun kan moo ñu colonisé Espagne wala Europe. non ñun France. ah France moo ñu colonisé xam nga ñun yëmbal am na lu ñu xam mais am na ñu xamul quoi mais mooy loolu quoi at na dara méttiwul. at na yàllaa ko moom. at yàllaa ko moom mais cinquième président Sénégal kan la. cinquième président Macky Sall la. macha allah. Uh-huh. président Macky Sall la. kan mooy premier bi. kii la nu mu tudd waay tur bi laa jàppul. Lamine Gueye Lamine Gueye. Lamine Gueye la Lamine Gueye la. Mm. kuy deuxième bi. deuxième bi Senghor. troisième bi Abdou Diouf quatrième bi Abdoulaye Wade. cinquième bi Macky troisième sixième bi incha allah bëgg nañu mu doon Ousmane quoi Ousmane Koulibaly. moom <laughs> mooy egg si tur bi mun naa egg si tur bi gars yi dur maay bal. Ousmane Ousmane Koulibaly. mais mais. mais Bruno euh, hymne national. Uh-huh. sunu sunu bàq réew la. Uh-huh. soo koy soo koy dégg sa xol day sedd. Uh-huh. rawatina ñi nga xam ne du ñu ay sénégalais. tey bu ñu déggee sénégalais bu mel ni yow. di di di way way wayu dëkkam. xol day sedd est ce que doonu may tuuti si hymne national. non moom boo dégg yàlla xamuñu lu ñu si wax mais xam nañ temps yi. waaw. les tours pour la plafonner par la fond. Wow. Donc nous avons dit la donne délacée, la donne délacée, les roues naissantes, le soleil de la vie, le soleil de la voie. Taisez-vous, vos la plafonner par la mer. Bro, maa ngi si ah. lépp jàmm. tur bi nan la. Mbaye Mbedd Fass. Mbaye bu Mbedd Fass. waaw. ah tey moom macha allah tey moom fii xeeñ na banlieue quoi. fii kay ma la bëri sax. sama xol bee ngi sedd waay fii gerte bëri xeeñ. mais Mbaye tey la kañ. tey nekkul tey la tey la kañ booy. tey la 4 avril. 4 avril feetu nan la. feetu lii indépendance. indépendance ñun kan moo jox suñu indépendance Espagne wala wala wala France wala wala Angleterre wala. woon. Euh, président Léopold Sédar Senghor. cinquième président Sénégal kan la. daa mel enal korok ah cinquième président Sénégal Alioune Sall wala demewul noonu. Alioune Sall maanaam Macky Sall bu wàccee kon Alioune Sall. non Macky Sall waaye Sonko mooy toogee tabale loolu nag Sonko mooy toogee. waaw ku nekk ak sa président noonu lay demee saa su ne mais tey euh, tey xam nga yaa ngi dégg. hymne national bi. lépp échange a ñu taw. mais hymne national bi doo si may tuuti. ak ah, bisimilah rahmaani rahiim ah. te weeru koor bi la moo tax nga naan bisimilah. waaw ginnaaw ma sant yàlla dul bi sant sama ñaari waajur maa leen may lim naal di Sénégal. waaw Baissez tous vos corps, frappez les balafons. Les roses arrosées. La de la cesse. Dissipe pas les ténèbres. Le soleil se déterre. Le soleil se déterre. Waouh Fibre de Bacovin Il est sur Il est sur Il est sur

ara man ah, mu ngi noonu ah yaay booy ñu ngi lay ziar. yal na yàlla fay ziar. Eh, nga baal ñu àq ci gi. baal naa leen baal leen ma ak yàlla nañ yàlla nañ ko yeggale jàmm salaam dugg nañ ko ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilah rabil aalamiina. yaay booy tur bi nan la. man Adja Aminta Gueye laa tudd. Adja Aminta Gueye eh, fii nga dëkk. Adja Aminta Gueye yow mi dëkk fii tey lañ nga nu mën a wax ci feetu indépendance ak ci défilé ci 4 avril ah, loolu day bari na xanaa dañ koy gàttal. Mhm. waaye man ci ñëkk ñi njëkk a défilé feetu ci laa bokk parce que Fatick laa jànge ndeysaan laa jànge mhm. dañ jël les meilleurs élèves. ñu jël ñu yóbbu nu Kaolack booba temps Siin Saalum la ñuy wax. Mhm. partagé guñu fatig ak Kaolack. donc Kaolack lañu yóbbu dalal ñu ca chambre de commerce ba premier défilé. premier défilé premier défilé mu doon ban année. 1960 waaw. Hmm. dañ ñu jël. ñu dem Kaolack défilé ji. bi ñu paree ñu dellu ñu daal di chambre de commerce lañ la dalaloon sa Kaolack. Hmm. waaw bi ñu paree ba ngoon jotee ñu dugalaat ñu ci oto yóbbu nu Fatick. ñu ñibbi. mais yaay booy yow mu fekkee premier défilé euh, ba 63e euh, défilé est-ce que ni mu doon mel à l'époque est que ba tey mu ngi mel noonu. noonu ay bëggee woon ak mu ko doon dundee. non bu njëkkoon défilé bu 4 avril jotaan kenn du toog sa kër. ñëppay dem. ndeysaan ñëppay dem. Mm-hmm. école dem. léegi nag moom dangay am ñuy dem ak ñu du dem waaye bu njëkkoon ñëppay dem. ba pare dañ ko daan préparer kër yi dañ daan togg. xew lañ ko defoon. di peinture. kër gi kër gii lu ne togg nañ ko fi kër Momar Marème Diop gi dañ daan peinture miir. ma ne dañuy jënd meuble yu bees salon bi dañ koy defaraat. salon bi dañ koy defaraat bu dee tapi nga laal yi tap yaat bu ñu bees bu dee karo nga karo bu dee peinture nga peinture. feet bu njëkk ba. waaw waaw ñun lii feet la daan doon de. indépendance ci boppam ca lañ ko jote waaye léegi nii lu bari defatuñ ko. mais mais mais mais lan lan nga foog ne mooy problème bi liñ daan def bu njëkk ak. non c'est xale yi dañu démystifier lu bari rek ñun lim ñu jaraloon yéen jaraloo leen ko. da ngay romb drapeau ñu di ko yëkkati ngay dox. ñun dañ ko sañ ñu yëkkati drapeau nga toog fële di xoole police ngay fanaane waaw. ñuy yëkkati drapeau lever drapeau ngay dox nga jëm. yaay booy yal na sa jàmm na yàlla yal na yàlla yokk. yàlla yokk seen liggéey ngeen fekk lu bari te def ci seen jom fii mu nekk nii loo wax ñu ne xale yi jikko yi xale yi jikko yi xale yi jikko yi déglu leen seen parents yi ah? parce que euh, actuellement insolence bi bari na kenn xamatul ki nga ki la mag kenn joxatul kër kenn loolu baaxul. waxtaan leen ci seen biir. yàlla yàlla def amiin yaa rabbi. ayca mu ngi noonu ah, ah noonu lañ koy defee saa su ne nee naa la lu jiwoo jeexul jugu fa li duufandoor si nag li xaju si sin li te li ku ko tegg ku ne coow da lay topp sunu people TV Mor Xobar Xobar tey feetu indépendance la woon ñu wàccoon si terrain bi ah ma àndoon ak sama caméraman bi ndaanaan bi champion bi muy cànduma ah, doomu fas Medina Gueule Tapée bi bro yàlla sa jàmm yàgg ah di ñaanal yàlla yàlla def jàmm si réew mi waaye sant nañ armée bi ah armée nationale armée de l'air eaux et forêts police gendarmerie président de la ñu koy ñaanal jàmm kilifa diine yi kilifa aada yi tawfeex ak taysir forever ah, ak leneen moor xobar xobar sunu people TV baay leen dëkk du nu bàyyi dëjëyif yàlla na sa jàmm yàgg kenn du yow.